internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot su nekk ay xibaar yu wér te ci réew mi ak ci réew. internet yi bàyyi xel ci Seneinfo point net ak Seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas leen defal tënku ba xibaar tey mardi 18 octobre 2022 ñu tàmbale xibaaru biir réew. mbir mu doy waar moo xew ci dëkk bi ñuy wax Gurel nekk fële ca département bu Matam ñu ne nag ab béykat buy wuyoo Baro toll ci 26 ans moom moo fa faat soxnaam soo xam ne mu ngi toll ci 19 ans gannaaw bi nga xam ne nag ñu ne soxna sa Dakar ñaan baat loolu nag ñi ko xam ne ñoom ñooy suñuy naataango yu libération. ñu ne nag euh, kooku nekk ñu ne moo def li ni mel fi mu nekk nii nag mu jël loxoy yoon ñu garde ko ak yi kon foofu la ci gendarmerie bu Ourossogui. Ousmane Sonko ci nemmeeku tour bi nga xam ne tàmbali na ko muy ab tournée bu mu fas yéene def ci département yi nekk ci Sénégal gi yëpp ñu ne nag euh, kuma commencé na jaakoon daal euh, gis njëriñ ndax gannaaw bi nga xamee ne euh, kii di mouvement bu Agir bu Malicounda di Mamadou Dia demoon na fekki ko amaat na keneen koo xam ne it fekki na ko muy président bu mouvement M2M di Maguette Ndoye Ndiaye bésub tey bi nag di mardi bi Ousmane Sonko war a dem fële ca bu mbuur wante sax fi mu nekk nii nee nañ ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ñu nga fees dell ca dëkk ba ba sax ñu njort ne kon boo moywul dina am ay jàmmaarloo comme na mu amee woon fële ca Joal xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy nag euh, secrétaire général bu Nations Unies bi nga xam ne bésub mardi bi war na jébbal rapport bi nga xam ne kon amoon na ko ci situation bu nekk fële ca Mali mu war ko nekk jébbal kon euh, war ko wax ci kanamu lii di conseil de sécurité bu Nations Unies euh, rapport bi nag ci diggante kon euh, juin ak septembre la rapport boobu nag ñu ne ab naat genre bilan lay doon tey sax dina tax ba ñu xool nan lañuy kon wéyalee mission bi nga xam ne ñu ngi koy amal foofale ca Mali beneen partie bu am solo ci rapport boobu moom mooy dina ca waxtaanee Euh, tuuma yooyu nga xam ne euh, réewum Mali dañ ko tuumaloon réewum France xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité russe yi ñoom nag xamle nañ ne euh, recherche yooyu nga xam ne ñu ngi ko doon amal gannaaw bi avion boobu daanoo woon démb ci altine ji benn avion militaire euh, foofu la ñuy wax léegi ñu ne nag fukki nit ak ñett kon ñàkk nañ ca seen bakkan te fi mu nekk nii sax dakkal nañ li nga xam ne moom mooy recherche yi nga xam ne kon ñu ngi ko doon amal. dañ koy jeexal ak xibaar sport suñu gaynde gii di Sadio Mané démb nag euh, dafa am ndam lu rëy ci cérémonie ballon d'or bi nga xam ne ñu ko doon amal fële ci réewum France moom nag moo jël deuxième topp ci nga xam ne moom mooy euh, Karim euh, Benzema ba léegi Sadio Mané it dafa daal gagné li nga xam ne moom mooy trophée Socrates loolu sax muy lu njëkk muy am ci ballon d'or ñu jagleel ko ko kon ndax daal œuvre sociale yi nga xam ne kon mu ngi koy def rawatina fii ci Sénégal di fi ak i jàkk ay école ak euh, yi ni mel kon tax ba ñu euh, daal sargalee ko boobule trophée euh, muy lu am solo kon Sadio Mané nag àdduna ñu si bëri ñu ngi sax ndokkeel di ko sargal di ko envoyé ay message ak bokk na ca njiitu réew mi Macky Sall mi nga xam ne nag mu ngi rafetlu bu baax a baax ñaareelu place boobu nga xam ne Sadio Mané jël na ko moom sax muy fàttali ne kon. Sadio Mané euh, mooy daal joueur africain bi nga xam ne kon am na performance bi euh, ci li nga xam ne moom mooy Ballon d'Or euh, gannaaw bi nga xam ne George Weah moom mooy benn africain ba fi mu nekk nii bi jël li nga xam ne moom mooy boobule Ballon d'Or suñu gaynde gi nag di gardien de but bi di Edouard Mendy moom lañ classé quatrième meilleur gardien li ñu doon denc xibaar moom la seen teew li ñu doon denc ëllëg yaa ngeen jëf.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 ak ci àdduna bi seen groupe d'information seen info international ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg